Seydi loo màgg màgg bu nee mal waaf nga yàgg ña la daar mooy waada mooy waaja seen mbër rawoon na yàllaaw Chérif Abdoulaye nee na baayam maam Seydi moo taaru moo maanu moo am diine moo ame ngoor yoneen la doomi yoneen yàlla ya laaw kon yoneen doomi yoneen sey dey doomi baay laay ba baay laay demee jaab ma laay yaa fi ne leen di jox dig daje vendredi 21 juillet incha allah fii si Cambérène ñaanu maam Seydi ànd seeg Diamalaye Events